tuubaa ngi woote bésum màggal ga waaju ko man na waaj te ndax sëriñ tuubaa ku ci gan góor gi gaan nanga kii ndaw nag lan woo màggal si leen màggal tuubaa ko miin góor gi gaan nanga kii ndaw ñépp woo màggal si leen màggaluk Tuubaa ñépp a ko miin dix-huit ci weeru safar mooy bis ba bis ci yàlla ak yoneen baak Bàmba teewe ko ren ku man ñëwal ku manu lit ba foo mën a yem ne bis ku cay góor-góorlu am ca duun bésum ngëneel la bu ànd ak jàmm bés jaamoo ko sant ka berndeel gan ya yu dagan sëriñ bi ñu lay nuyu ñu lay nuyu di la ziyaara di ci jaamu yàlla bu ñuy jublu muy màggal di ñaan yàlla mu fekk ñu fi teñ tànk di ñaan yàlla ñu doxale ko nu gën a rafetee nu ñu daan doxale màggal bu jiitu yàlla yàlla nag ñëw nañ tey jii bëgg lool ci daje gi di jàpp ne daje nañ ak xalif général di muy sëñ Mountakha ndax ku la gis gis na ko ku wax ak yow wax nga ak moom kon suñu daje bi ñu daje yow daje la ak moom itam ñu lay ndokkeel bu baax di bëggee sa taxawaay ndax jataay bi yaa ñu ko may yaa ñu ko mayoon ca Ndakaaru ñu dajeeg yow sa kër ga nekk ci began bi nga wax ne soo sañoon Tuubaa Tuubaa lay booba léegi ñu koy jéem mu xat ba màggal di dëgg dëgmal si ñun sax jàppoon nañ warta mën a nekk nga ne ankay jataay boobu amal naa ko waxtu ci màggal gi ñëw leen seet ñu ngi nii ci sa kanam sëñ bi Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal rabitatul aima wa toa di benn kuréel ci kuréelu imam yi nekk Sénégal ak sëriñ bureau national bi yëpp ñëw na bureau bi yëpp ñëw na xëy na kenn moo ci manqué gannaaw loolu suñu représentant ci Kaolack délégation jóge na fa imam Ali Ndaw moo ko jiite Louga oustaz Ablaye Sall moo jiite délégation bi ak Ndar waaye Thiès Mouhamad Mbaye moo jiite délégation bi Bambey oustaz lii ci gàttal mboolem ñi nga xam ne taabu xat bi may na leen ci seen wax ñu mën a teew si Mbàkke ñoom ñëpp ñu ngi teew si muy jataay bu rëcc ndax jataay la boo xam ne dafa mel ni lu munta ñàkk la ndax ñu continuer suñu liggéey ñun Mbàkke li gëm mooy ñun seen njaboot lañ bokk ndax dañoo bokk sas wi yàlla boole ñu ko sas ngeen ëpp nañu ci aw sas waaye ñun itam ñu am ci ay dooñ yoo xam ne foog ñu bay ko te mooy nekk seen nopp nekk seen bët ci biir xel nekk ay imaam yoo xam ne koñ bu ñu nekk ku fa nekk jullit am nañ possibilité dajeek yow juróomi yoon ci bis bi muy lu ama am solo ñu jàpp ne nag suñu rôle nuñ ko jouer ba mat su fekkee yéen ñu ñu toogal ci gox yi yëgoowuñu ak yéen ndax li yàlla dogal mooy ñoo bokk sas bi waaye yéen bi ngeen ci féete mooy yéen la nit ñiy déglu ñun lañuy déglu waaye yéen lañuy ñuy déggal kon naka fekkoon ne yàlla na nekk ne li ñu leen di wax mooy li ngeen bëgg ñu wax leen ko ndax suñ leen waxee lu wuuteeg li ngeen bëggoon ñu wax leen ko ñoom du ñu duñu déglu waaye duñu leen déggal kon Mbàkke dañoo ñëw di feddali ko lu googu di bëgg ngeen jàppale ci loolu ngeen nangul ñi ñun seen njaboot lañ te ñoo leen toogal ci gox yi te insha allahu fas yéene nañoo ñu fa wax lu dul lu ñu jàng ci alquran ak sunna yonent yàlla muhammad ak ndénkaane bi nga xam ne mag ñu baax ñi ñi ñuy jàngal diine yar ñu ci ñooñu ko wax ñaari lislaam amul Sénégal ñaari njabootu diine amul Sénégal benn lislaam moo fi ñëw di lislaam bu wér moom lañ fi jàngale moom la ñëpp jàng ñu nekk ci ay jullit ngeen jaboote ñu jàngal ñu yar ñu ñu mën a àgg fu ngeen eggut mën a dégg lu ngeen déggut lu ngeen yëgut ñu war a jouer rôle boobu Mbàkke loolu dong mooy tànk yi ñu leen di ñaan ngeen jàppale ñu ci ndax yéen yéenay ndox ñun ñooy jën te dooley jën ndox loolu daal su fekkee kàddu gi mën naa ko yemale foofu loolu dong mooy sababu ziyaara bi ñëw feddali coloré feddali yëg-yëg bu ñu am ci ne ñun ci yéen lañ bokk ci yéen lañ bokk ci deret deret ci yéen lañ bokk ci àlluwa ci yéen lañ bokk ci pas-pas salaamualeykum wa rahmatullahi suñu bokk jiw ñu tëdd yi di imaam yi nga xam ne yàlla suñu borom moo leen cër boobu di cër bi nga xam ne ci lislaam mooy cër bi ci gën a mag kon ñu leen di delloo jàmm ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha am di tariqatal muridiyya hafizahullaahu wa ra'ah di leen sant baax di leen ci ñëw bi ngeen fi ñëw tey ngeen jokk bokku lislaam bi nga xam ne suñu borom moo ko santaane wax ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ni ko imaam Ahmad Daara waxee mooy solo lislaam ji am leen ci aw doon boo xam ne suñu borom moo leen ko cërale leen di ci liggéey liggéey bu am solo ndax imaam foo fekk ñu tànn ko fa rek bokk na ci ñi ko gën a baax bokk na ci ñi ko gën a ragal yàlla bokk na ci ñi ko gën a maam ndax man ngaa fi mu sëriñ ndax ak cëriñ nit dana ko judduwaale jikko a doon ñoo tax ba àgg te waaye ci aada fii gis ko judduwaale bu dee imaam rek faaw ñenn dëkkat yi wala doonoo tànn ko kon loolu loolu cër moo def ndax ñu charte ni ko Ibnu Ashir waxee rek charte imaam yi lekk lu ne mu kallafun arzu bi arkaani wa hukman yaarifu waxee lu si gis te mu wala xam ne ko te daa fi jum xadim pour mu xim odda ba ca bëy dee jeex kon imam doonu bi nga ne mooy imam bu mag baax ñi nga xam ne ci yàlla yi ñëpp tam ku ci ne loolu mooy sa bi gën Cheikhul Khadim mboolem fu mu mas a sanc kër tàmbalee ci Touba fu mu mën fas yéene ànd liggéey bi gën a nekk benn ndax euh, lépp loo xam ne nosuñ ko rek diis ko mën a jël kon nag yéen itam bu ngeen xamee cër bi ngeen ci xam cër bi ci kër gi ne yam ngeen fas yéene àndandoo ko mu nekk wenn say loolu kon dañ koy rafet bu baax a baax di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom kàttanal leen ba yéen itam mission bi nga xam ne yéen a ngi koy tamit mission bu jafe ndax koo xam ne danga dee askan bi juróomi yoon doomu aadama yi ci bis bi loolu mission bu rëy la ku mën a bàyyi àddunaa bi tam jënd ko àllaaxira moo ko mën def kon loolu ñu leen ci sant di fas yéene ànd ak yéen ci rafetlu xalaat bi ak jéego yi nga xam ne yéen def di ñaan tam suñu borom aar kuréel gi sàmm ko. comme ni ki nga xam ne noonu la aare alquran ni ki nga xam ne nii la aare lislaam ndax yuriduna an yutfiu nuurallahi bi afwaahihim kon loolu euh, dañuy jéem rek waaye duñ ko mën wa yaaba llaahu illaa an yutimma nuurahu ak wallaahu mutimmu nuurahu kon inna la nansuru rusulanaa kon nañ xam ne képp ko xam yaa ngi jub rek ngir jëm ci sa borom sa borom moo lay gàtt lu moo lay dimbale moo lay kàttanal itam ba noonu yàlla duñ mën a si ci kon nag la ciy sawar téef rek mooy ni ko alxuraan santaane wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribaati alxayri turhibuuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum loolu dara jiituwu ci yoon say yi ngeen def ànd la dekk benn bu yoon ko defee rek dara du mën a si jéem kon nag loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax li xam ne loolu la lislaam santaane ndax jullit mbokkum ji itam mbokkam kon loolu bu ko ñëpp ne di ko dund te xam ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi sell yéene sellal xol yi la ci ëpp solo it mooy ñëpp maase ci xam ne li ñu tàggale li ñu boole ko ëpp ndax mboolem li ponk ci lislaam yi ci ëpp solo ak juyoo amu ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah kenn wutewu ci julli kenn ku di julli wutewu ci natt asaka kenn ku di julli wutewu ci xajju baytullahi al haram kenn wutewu ci kon nag benn benn yi ñu wute nañ fexe ba li nga xam ne déggoo nañ ci ñu fexe ba ànd ci di ko rafetal te sàmm ko di ci déggoo yi nga xam ne nag am na wuute ñu fexe ba rafetal ko rafetal gi mooy kenn ku ci ne bu jàppee xalaat la gën a dal xelam seet ne moo ko gën a doy mu ne ca mu sàmmal moroomam la nga xam ne moom la gëm ak lam jàpp moo ko gën a doy loolu bu ñu ko defee rek ñëpp day ne ci jàmm ngir xam ne li ñu boole moo ëpp li ñu tàggale Sëriñ Tuubaa nag ñun dañu ko sant dafa wax ne wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah kon li ñu war a xam rek mooy xeex bi nekkul ci diggante jullit ak yéefar diggante jullit ak waroobu jullitam waaye xeex bi ci diggante jullit ak yéefar la nekk te loolu itam lu ci ne alxuraan dafa am lu ci santaane wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan ak wa jaadilhum billati hiya ahsan kon lu ci ne rek ñu xam ne suñ borom mi nga xam ne walaw shaa rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum ko soobee ñëpp ànd loolu nekk wenn xeet li ñu gëm di leen doxaliwu ko noonu nag bokk na ci li may jàmm bokk na ci li gën a mën a di jàmm mooy kenn ku ci ne lala day la lala doy dal sam xel nga ne ca la sa morom nekkit nga war maalal ko ko te fonk ko kon nag ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di leen sant di leen gërëm te jataay bi ñu am itam ñu saasu ko fursa bi ma rek ñu defaat ko di gën a waxtaan di gën a déggoo lépp rek ngir lislaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Thank